lundi ah gis nga ah. depuis sa vendredi samedi gars yi dañuy agité le secteur dañuy agité les PME dañu ajité les marchands dañu agité dañu paroon pour xeex marchand non si si xam nga tax xanaa du ñu ñu dajale woon fële di tàcc dañoo dañ xam nga non maa ngi ñëw agité gis nga xam nga dañu paroon pour xeex ah xam nga ñun ñu secteur ñun am nañ plan yoo xam ne pour ñu paralyser dëkk bi yomb na xam nañ yoon bi mais comme dañ bokk dëkk bi le premier Ousmane Sonko am ñëw na waxtaan ak nit ñi dégg nañ ko. mais déplacement Ousmane Sonko déplacement politique la. wax non non non xam nga xam nga kay quand je parle man mi di wax yow man maa doon coordonner le le le mouvement national des acteurs de la coalition Diomaye président. du secteur informel. xam nga secteur informel man kenn du ma si jàng dara man oubien bien du bari man damay politique falaa far man. mais tey ñëwuma pour politique te dama ñëw pour. mais mais je veux dire non on parle des entreprises mais suñu waxee entreprise ak ndaw yi nan lañ def ba mën a ba ba am liggéey mais est-ce que war nañ si rax affaire politique. fan man moo tax dama tey ñëwuma pour am benn casquette politique dama am indi casquette organisation professionnelle. waaw di mbir wax PME yi. mais Ousmane Sonko li mu def man dama ko apprécier tey imagine toi Pape Malick nga waroon xëy si Aïcha war a xëy si dëkk bi nit ñi di xeex kenn kuy bougé te gars yi dañuy décidé woon. ils étaient très décidés te xam naa ne ma li si nekk tey bu jógoon mun na paralyser dëkk bi moo tax Ousmane Sonko très intelligent xëy na je sais pas entre avec le ministre de l'intérieur dëgg la dafa yéex a jóg mais comme jóg na baax na mais bu jógul woon mën na jaxase rek mais instant yi formalisation bi ak formation bi moo am solo. nañ xool mais mënoon dem assumer responsabilité ni ñu ñoo def opération des xam nga nag am na yoo xam ne man man dama. fa dama fa dama fa yem de. Hmm? Ousmane son c' est le premier du Sénégal. institution ma dama koy jox cër ndax kilifa la li mu wax ma dama koy nangul bu baax a baax a baax du ma si du ma ko jotee mais man ma sañoon mu teel a jóg. mais comme teelu mais jóg na ba tey dañ koy nangu mais xam na liy dégg dégg na xew ñoo la fi teg de ah tablier yi ñoo la moo tax dama la Ousmane Sonko teelul jóg waroon na teel a jóg bu fekkoon teel na jóg mooy li gën mais comme heureusement jóg na wax ak sénégalais yi wax ak le monde entier comprendre nañu wax mais man li may ñaax rek sama camarade yi nañ defar toogaay yi man loolu dama gëm man toogaay dañ ko defar man nanguwuma yenn taxawaay si mbedd bi man mënuma comprendre nga dem taal benn 3 mètres 4 mètres te ko si mbedd non je suis pas d' du dëgg bu dëgg jo da nga koy da nga koy wax mais nañu réfléchir def ay table yu yem démontable xam ne boo wàccee démonter sa table denc ko ndax guddi gi doo sonal kenn. mais foofu mais foo xamante ne amul droit teg fa noo nooy tegee lu démontable. Euh, euh, instant yi dama gis maa gis nga problème mu droit am na solo mais gis nga problème mu vie dund dafa cher. doomu doomu aadama fa dund plus de 3 millions de sénégalais yu si dund nga ne ñoom duñ fi dundee mais premier sonso nee na nañu xool nañ leen organiser nañ xool nañu waxtaan ak ñoom léegi ñu ngi koy woo mu waxtaan ak ñu ñu orienté ko xam ne d'ici quelque temps si un an deux ans trois ans mbedd bu jeexul dana wàññeeku. alors Amadou. man ci lay ci lay ñëwaat ba ci ci Ismaïla